maa ngi wax ci turu collectif bi jóg taxaw oh, pour que rey bi nga xam ni force de l'ordre yi ñi ngi koy rey citoyen sénégalais dakk euh, dañ naroon a marché tey jii ajuma ji buñ julee jumaa ba pare mais kilifa gi nga xam ni moo yor gox bi di préfet bi dafa génne ab bataaxal ne marché boobu tere na ko ñun ñu nekk ñoo xam dañoo tegu ci yoon ndax dañuy réclamer yoon li ñu tegu ci yoon moo tax dogal boobu nga xamni ni kilifa gi jël na ñu nangu ko nangu biñ ko nangu teewul nak am ñu jangat ci li nga xamni ni lañu wax ni motax ñu téré marché bi li wax ni motax ñu téré marché ben dañ ni dañuy bañ mu am yëngu-yëngu ci bëre public moy place askan wi ñaarel bi dañ ni dañuy bañ ñu xotti orma ab institution bi mana ab kurel go xamni ni yor euh, mbirum askan wi ñu tontu ni ñun ay kilifa lañu ñun ay citoyens responsable lañu lépp luy indi yëngu-yëngu ci place publique bi duñ ko def li tax ñu jóg mooy bañ lu mel noonu amati li tax ñu jóg dañuy bañ ku orma institution orma institution ku ko xotti ndax ki nga xam ni moom lañu fay xaalis mu war a protéger citoyen bi mu jóg jëf-jëf joo xam ni citoyen bi da cee loru kooku moom moo xotti orma institution boobu ñu naan police ñun boobu kooku la ñu bëgg ñu jël ko tekk ci yoon ndax police siggi ki nga xam ni dafa xool ab étudiant amul lenn lu muy def ci moom génn fital sox ci kaw mu dee kooku xotti na orma institution dañoo bëgg institution boobu ñu jàppale ko mu ëwaat ormaam di sanctionné kooku ki nga xam ni dafa jël ab citoyen sénégalais muy Pape Sarr daal di koy taal ba mu faatu kooku def loolu te bokk ci institution lañ ni kooku nañ ko génn ci institution boobu sànk ko ndax institution set donc ci tënk ñoo ni ñu yëkkati ñun mooy justice la ñu bëgg institution yu set la ñu bëgg dañu bëgg police boo xam ni day jariñ askan di servir askan bi waaye police boo xam ni day sévir fu mu toll ci askan bi dañu bëgg police boo xam ni dañ ko jariñoo ko ñun bàyyi ko suñuy doom ëllëg mu mën leen a jariñ police bu tilim bëggu ñu police bu salté dañu bëgg police ni muy xeexee nervi yi nga xamni ñoy servir politiciens yenn yi di def yenn galancor yi ñu xeex pour que nervi yoy baña sol tenue parce que ab nervi bu solé tenue sol mbaxana ñu takkal ko garaat nervi bobu day dangereux donc ñun suñu xeex loolu la combat bi moy c'est un combat pour la justice c'est un combat pour que néegi doole ji ki nga xamni amul alal pour gel police police ñëw taxaw aar ko ci contre ki ko bëgg a ger noonu policier bi mooy ki nga xam ne mu ngi ger police pour mu nekk à son service ñun nag dañoo bëgg nekk xaritu police àndandoog moom ci justice mais xeex ñi nga xam ne ñu ngi ci biir police di def lu ko sudul noonu donc tant que justice boobu amuñu ko tant que ñi nga xam ne ñu ngi xotti ormo bi te sol tëni ñi ngi fi sunu combat dinañ ko continuer loolu moo tax marche bi ayandi nañ ko ndax respecte autorité bi respecte ordre bi respecte sunu réew ak justice waaye nag dinañ bindaat bataaxal won autorité bi nekk jàmm ak justice mooy euh, tënk sunu pas-pas pas-pas boobu it mu ngi fi il faut ñu xam ko que ni am nañu pas-pas continuer combat bi boo xoolee le 20 février 2017 benn famille la woon tey ñaata famille la actuellement li taxaw nii juróomi famille taxaw nañu sans compter yeneen famille yoo xam ne teewagul ak yeneen mouvement yoo xam mooy ni mbir mi mu ngi mag mu ngi jëm kanam te toujours citoyen yo xamne dañoo mer la citoyen yo dañ a citoyen xam dañ donc motax interpeller état interpeller le président la interpeller les ministères en charge de la justice et de la police Nous jog taxaw ci lu melni combat bi ñun ak ñom la combat bi ñun ak citoyen yi nga xamne dañu bëgg jamm dañu bëgg justice police bu set set gogu nak nañ ci